bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li ya amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa xalbi arshida bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte mu rëy bi nu yàlla baaxee nu fekke woon bis bi daaw ren yàlla dogal baaxe na nu fekke ko te ànd ko akuk tal di am mbégte it ci wuy si gi nga xam ni bokki taalibe yépp wuy si nañ ko ngir fekke si bis bi di ñaan yàlla it sunu bokk taalibe yi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon bis bi daaw te ren yàlla dogal fekkewuñu ko ku mel ni sëriñ Moustapha mi nga xam ni moom moo yoroon wàllum kafe gi ñi ngi ñaan sunu boroom jéggal ko ci dara daraje Sëriñ Tuubaa ni nu ko junje woon danoo baaxoo sunu dajee nu am waxtaan woo xam ni danu koy def jubluwaay gi nag mooy képp ku fi teew nga am loo mën a yóbbaale te loolee nga yóbbaale lépp nag du génn xasida yi looloo sabab ñu woo sëriñ xaadim njaay tasawuf mi nga xam ni xam nanu ko ci biir réew mi ak ci bitim réew te ab liggéeyam lépp jëm ci tasaare xam-xam jaare ko ci Cheikh Ahmadou Bamba balaa ñoo sori ñu ñaan sunu boroom mu dolli fee yàggal Cheikh Mouhamadunil Muntaqa mi nga xam ni moo nekk ci boppu njabootu Sëñ Tuubaa gépp ba mboolem bëgg-bëgg yim bëggal lislaam yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci biir bëgg-bëggam yooyu mu bëgg nga xam ni bi ci gën a fës mooy xam-xam te xam-xam doon bëgg-bëggub sëñ Tuubaa bu mu mas bëgg def ci dundam gépp jeexal ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñëw jël jitteem jépp jooyal ko jëme ko ci xam-xam def ko muy ab liggéeyam looloo sabab ñu tànn tem boo xam ni dafa jëm ci xam-xam ci biir mbindum sëñ Tuubaa muy bi ci xam-xam ci biir xasida yi ku ne xam na ni xasida yi Sëñ Tuubaa yi maanaa dafa tegu ci xam-xam lépp loo xam ni luy luy lu bokk la ci làngu arab sëñ bi da ko respecté ci biir am mbindam pàcc yooyu yi nekk nag ci biir mbindum sëñ Tuubaa sëñ Xaadim dina ci jukki aslëf ngir ñu bari ci sama classe bi gën a mën a xam ni mbindum sëñ Tuubaa ci xam-xam la tegu ñi ngi ñaan naal boobu sëñ Muntaxa naal sunu borom àggale ko te mu fekke ko ba fekke ci ay résultats yoo xam ne ñun ñëpp danañ ñu teg suñu bët kon thème bi mooy al i'jaazul ilmi fi xasaa'idil xadimi maanaam kiimtaanu maanaam xam-xam bi nekk ci biir mbindum sëñ tubaa ñi ngi ñaan sëñ xaadim suñu boroom defal la xel mu sell ak làmmiñ wu leer ba mbooleem li nga bëgg a jariñ bokk taalibe yépp nga am ci lu kawe sa njortu bismillah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 di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi ndax ci barabam la ñu nekk tey di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo def daje bi tey di ci jëmmal xasaayid yi sëriñ Tuubaa yi bi ñu leen di ziar di leen nuyu dañuy jaar ci ñoom di yóbbante nuyoo ci sëriñ muhammadinil muntaxa ayadahu llahu wa ataala baqaa ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te defal ko ak wér ak ak man jublu gim jubloo liggéey yàlla na ci am ndimbalul sëriñ Touba taalibe yi nga xam ne ñoo am ñoom it pastéeful di ko jàppale yàlla na leen sunu borom di dolli ci zahir ak ci baatin muy wér ak am ak mucc xam ngeen ni tey dikk nañ fii di fas yéene def ab tomb ci wàllu liggéey bi rek leeral lu jëm ci wàllu mbindum Serigne tubaa ñi ko maam Thierno waxee léegi muy miracle scientifique bi nga xam ne dans lekritiir de Cheikh Ahmad Bamba mooy al ijaasul ilmi fi xasaidil xadim xam ngeen ni bind xasaid yi leer na leen ne luñ bind la noon nag dañoo baaxoo di barkeelu xasida yi di ci barkeeloo waaye duñ bàyyi xel ci wet googu suñ seetee xasaid sëñ Tuubaa yépp mooy isa baxas na fi l xasaid alxadimiya najit najid man mansuuman dañuy gis ne bi dawaabit ilmiya dañuy gis ne daf ko liggéey ci jumtukaay xam-xam la jël liggéey ko ci muy liggéey bu rëy boo xam ne li tax boo yore xasida ak sëñ Tuubaa doo ko yóbbu ci benn boroom xam-xam mbaa nga yóbbu ko ci menn réew bañ mën caa génne virgule buñ fot li tax mooy boroomam daf ko teg ci tegukaay bi nga xam ne mooy tegu tegukaayul xam-xam mboolem nattukaay yépp ak jumtukaay yépp yu war a rafetal wax ak yu ko war a wodd Sëñ Tuubaa def ko ci defin woo xam ne wii it nag wu yéeme la ndax fekkoon na fi am ñuy liggéey waaye faw ñu leeral li dox diggante liggéey boobu ak ñi daan wax Sëñ Tuubaa lim def ay woy la ci bët waaye ab liggéey la ci xel ki koy jàpp day xam ne lii ab liggéey la suñ ko xoolee dinañ gis ne ni nga xam ne lañ daan taggee waxkat ñu ne diw dey fasiix la baliix la ñu ne diw dey wax bi dafa leer su la waxee dooneen lu mu beneen biir mooy su la waxee ba ba maanaam yi day doy sëkk doone loo bëggoon a wax ñaar yooyu la ñuy ëmb ci wax ba noppit wax ji baat yi ngay tànn ngir wax sa wax nekk lu rafet moo tax kiy jàng xasida sëriñ Tuubaa yi mu neex ko day jàng mu neex mu déglu ko mu neex mais du xam so coono bi ci sëriñ bi sonn moo tax kon kenn warta jël ak xasida rek di ko jàngee noo la neex boo déggee mu ne woon sëriñ ma sàmba deel xool ñi koy jàng ku ci neexut baax nay durus ku mel ni man man durus laa war a def koo xam ne kii néexoo baat rek bul yëkkati daan ne ko nag ku yëkkati na ko tere su lànkee na nga ko gàcci gàccal kon de soo war a yar Sëñ tubaat joxe na aw yoon ci njàngum xasida bi ne képp ku neexut baat boo ko dee jàng nañ fexe ba noppi loola am na ñoo xam ne ñii nag tabarkàlla seen baat neexut waaye fexe nañ ba ba dooni jàngkat rek waaye xasida yi bu ngeen xamoon ni mu neexee ak fi mu jaar ba def ko wallaay lim ñu ci digal rek lañu def ñu gis ne ñi nga xam ne yàlla da leen may li ñu tuddee wa salixa al arabia mooy comme noonu ni ñu déggee wolof nga xam ne doo wax du wax olof yéen ngeen nan lu mu wax xam nga dégg ngeen ko daa am ñoo xam ne ne dañoo judd ci arab nàmp ci arab Sëñ Tuubaa nag fekk leen fi ñooñu ñoo jiitoon yonent yàlla Muhammad salaahu salaam bi alxuraan di bëgg wàcc la yàlla def ci ñoom comme ñoom ñooy maami yonent bi salaahu salaam la def ci seen xel yi leer gi tàmbali nag di leen di leen di leen aal lu mel ni sedd buy bëgg a dikk ni nga gisee wala nawet buy bëgg a dikk nga gis daqaar yi tàmbali di am am xob ñu ne nawet ay bëgg a jot moo tax bi yonent bi di bëgg wàcc rek leeru alxuraan yi bëgg a ñëw rek lañ tàmbali ñoom di def seen seen seen seen seen wayu rafet yooyu nga xam ne ñi daq way ci arab juróom-ñaar la tuddee leen muallaqaatu shaba dañoo dem ba ne seen yi nañ ko dajale aj ko ci kaaba gi ndax liñ daan wax ci lañ daan leble ci lañ daan fay bor kuñ masaan woy nga xam ne yow da ngaa def lu bon bañ way la ko way wi day mel ni gàcceel da adduna bi day wër àdduna bépp da nga joxe lu ne ci àdduna ngir bëgg way wa arrêté doo ko man mi ngi mel ni YouTube bi léegi rek ku watuwut bañ dugal la ci rek noonu rek lay mel dañ naan juróom fukki at moo tax gor su ne war nga koy daw bu baax a baax a baax xasaayit Sëñ Tuubaa yi daal laa gis ne moom war na cee mën a dox bu baax a baax a baax su ko defee kon la shakka annahu salaka maslakal ashuara al fuhul fuhulu shuara kuuyul kuuyul borom xam-xam yu mag yi yoon yen jaaroon ak lu mel ni xalil yoon yu natt ne lii moom lañ d'accord ci ne ku ci jaar ñu ne yow boroom xam-xam nga ku ci jaaru ñu ne yow amoo xam-xam bépp téereb xasiid sa mbindum sëñ Tuubaa moo jël lu mu gàtt-gàtt def na ca loo xam ne ci xeeti yooyu ma wax léegi ne mooy rafetal wax bari na bari goo xam ne soo ko waxoo xamoon tey dalay gën a neex lool bi ci gën a neex yi ci gën a neex mooy xasida yi waye gànnaar xam nga gànnaar moom day ak waat ndax day kër doomi soxna yi moo tax ci kër ñu weex ña waaye xasida gëm fu njëkk a sadd bu ñëwee ngeen xam ne suñ tubaabul morom moom moo moo mën a way moom rekk war a way suñ ñëwee nag almasab li ñu tuddee almasab masab mooy comme ñu naan ngirum Malik bu dee ci fiq ngirum saafi waaye bu dee ci way da ngay toppandoo benn waay même bu dee alxuraan booy jàng jàngkat yi xam ne da ngay toppandoo mbindum kenn dañu naan sëñ laatam sëñ chang bu mbindam euh, sëñ sëñ sëñ ma jëmb wala kaamilu yooyu yu rafet la day tax nga gaaw mën a bind waaye soo toppandoowut kenn day kii gis ngeen daaj yi sax daaj bi fi xale yi doon jàng léegi daaj bi xaadim gi boobu gis ngeen niñ ko daal di gaawee for indi ko ci euh, kii rajas fee la jóge ñu indiwaat ko ci fii mooy lu neex lu nekk rek day mën a ànd lu neex lu ne day mën a ànd su ko defee loolu kon ñu gis ne bi mu tàmbulee di bind arot ci la ko way juróom boole woon ak maam xaadima jaxate kala muy dem ci moom su wayee mu di ko ko xoolal mu wax sëñ Malamine Diop ne ko léeg-léeg fa taaratan mu gis ci benn tomb fa aslahahu wa taaratan laa yara fihi am ñu dem diir bu gàtt su ma ko joxee mu ne ma indi ma di ko jàng di ko barkeeloo ci yow kon nga gis ne diir bu gàtt rek la bind la way rek baay ma bàyyi xaalima jaxati xal kala moom wan ko ne ko doom nga woon léegi ngay bàyyi doom nga nga woon léegi ab sëriñ nga léegi soo bindatee man dama ci barkeelu di ko mokkal foofa lañ tàmbuli bindam tàmbuli bindam tàmbuli am leer kon am na lu tax mu di ko mokkal mu di ko wax duy way rek léegi duy wax rek ñu gis ne kon bindum sëñ Tuubaa dafa am li ñu tuddee al asar al adabiya bi maqaami sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gis nga suy way kim taxaw ci kanamam fas yéene ko wone ba ñëpp gis ko ndax daf ne ndegam koo xam ne yàllaa ne war a faanaa laka zikraka ko wax kon man tamit nag danaa ko yëkkati ba àddina bépp xam ko day mel ni su xasee takk ndigam ba taxaw ci kanam rasulullah sallallahu alayhi wasallam baat ya gën a neex yoo xam ne su ko waxee mooy gën a neex ci xolam nit ki ak xelam nit ki moom la lay jox di la ko jox rek ba nga xam ne bu noppi ci xasida gi rek suñu borom day daal di yebal naa jibril ne ko neel ahmadu ne ko xasida gi moom bëgg naa ko nangu naa ko ba noppi am na ci xasida yoo xam ne daf caa noppi way ko sunu borom yónni sidna jibril ne ko nee ko xasida gi dama koy àbb boole ko ci yamay dooree yamay décoré aras ca kenooy aras ya nga xam ne kon kooku bokkut a gaañ bokkut a gaañ di xalimbaam <laughs> bokkut a gaañ moom xakim la suy way dafa nekk hakim mub bi àlla maanaam day day fent artiste la sëñ tubaa artiste la c'est un grand artiste sëñ tubaa gis nga bi mu dikkee ci ci biir atelier bi atelier lettre arabe lettre alxuraan loolu dégg ngeen Moxtaar Sekk di ko wax da cee jël ba pare daal di tàmb indi ci benn genre méthode boo xam ne ñëfi fi jiitu woon defuñ ko ña ñii fi ne mënuñ ko ñooy ñëw ëllëg waxuma leen waxuma leen ñooñu moom waxuma leen waaye ña jiitu woon mosuñ koo def ñi jamonoon teg sëñ Tuubaa mënuñ ko parce que kenn wax ko fi xasida gu tax ñu jaaxale ko xasida te dootu ngeen ko fi gis mukk ci àdduna lii dikkit du am mukk ci àdduna loolu tax mun buy wax naan ajib bi jaahil Moustapha xasaidi wa sux bii aw wa sux biha li jumlatil maqasidi yow sama borom maa ngi jóg jëm ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam fas yéene koo sadd ay xasida waaye nag nag ma màngal nag ma ci defal maanaam lépp lu ma jublu ci biir rek jumlatul maqasid fu ma jublu rek na doon ab jublukaay nanga ma ci defal la ma ci bëgg léegi su bokkee ak soaraaw yi maanaam li ñu tuddee roy ak peese mooy baxru yi ñuy war baxru mooy mus mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafil wala fuulun mafailun fuulun mafailun lu mel ni asiru ma al abrari xiina asiru wa sannal ida anni hunaka asiru wala faulun faulun faulun faul ala man alayya wala su sa su fekkee bokk nag ak ñoom yoon wun jaar woowu nga xam ne mooy géej gi ñuy lab di jax nag waaye bokkuñ nag awaaneen mag ah <laughs> bokkuñ de waaw kon léegi foofu moo lay ne ndax moom yàqi xiyaa xilaamiyal xataa wa sahwa baaxin kafaaniyal ay daa wala waa suñ man sama xalima yàlla ci jëmm bopp moo ne aar naa ko du jum du jaax doo fàtte doo ko def mukk ci àdduna kon kooku mënta bokk keneen koy bind rek sëñ Tuubaa dana jëfandiku li ñu tuddee sahlul alfaas wa xusnu taabir mooy buy wax yow mi xamul dara jànguloo sax wax bi waxin bi dalay neex fi ne bari na waa na koy jàng xasida goo xam ne xasida ga koy neex rek waaye du ci xam dara fekk nag dafa am ñaari façon waxin dañuy wax xabar ak insa xabar mooy ma ne la euh, tey jii de yoof am na bésu xasida xam nga mën ngaa xam dëgg la wala dëgg su la neex neexee nga ne dëgg la su la soo ko wéddi fiiw léegi nag su fekkee xam nga ko yow jublu ma la cee wax ne tey jii de la suñu bisu xasida ba nga bokk ci daayira bi loolu lañ tuddee laasimul faayida léegi nag sëñ Tuubaa buy jël digganteem ak boromam ak Seydina Muhammad laasimul faayida lay jëfandikoo ndax xam nga lu lu mu jëf suñu borom xam na ko Rasulaay xam na ko loolu méthode boobu lay war su fekkee nag ci nit ñi la ifaadatul kii faayida lay def day day jóg pour jéem laa indil yow li nga bëgg pour wax la ko loolu moo tax koo mën a doon fi ne boo jàngi xasida sëñ Tuubaa xam-xam ko li tax sëñ Tuubaa nekk fas yi ay ay ay ay ba mu nekk fasih ba noppi nekk balix mooy ay baatam amul tànqit tànqit mooy mu luj lu mis lu mel ni misaal ma bëgg laa wax naan la euh, suñ suñ kër de am na gojug baat waaye soo demee nanga nga ndax baat ba dafa lug xam nga xam nga loolu xam naa jaxasoo ci yow xam nga dafa jaxasoo waaye soo dégg ma ne suñ kër am na benn goj su sa baag tàbbee ci teen soo demee jëlal sa goj jël bii nga génne ko ñaari wax yu xam nga benn la loolu loolu lañ tuddee ngay jëfandikoo liñ tuddee tànqiidul maana maanaam alfaas yoo xam ne mu àqada la maanaam mi neexut moom la day jëfandikoo nag jasaal jasaala boo xam ne ak temps boo xam ne maanaam day rafet ba pare baat bi muy tànn su ci wax suñu borom day dem xool baat ba nga xam ne mooy yelloog jëmmi suñu borom ja ak alxuraan ak rasulullaay mu jël baat booba indi ko ci al indi ko ci xasida yi noonu la suñ tubaat di jëfandikoo loolu tax ay xasidam yomb ba noppi rafet xasida suñ tubaat dafa leer fi mu ne yow boo jàngut sax boo xoolee xasida yi buñ ko maasee nii bind mi day tàlli pare dafay leer li tax mooy doo fekk mukk muy jël ay lu mel ni baatu xel kubéer ak aalom ko xaaf baat yi ko am ñu di ko sësale lu bari moo tax mbind mi rafet baat yooyu suñ àndee boo ko xoolee ci bët sax du neex moo tax Sëñ Tuubaa dafa silvisé maanaam ni jëmm ji mel ni mu silvisé rek noonu la mel noonu la mel ba ci mbind mi nag noonu la mel mas naa toog rahmatullah ali sëñ Abou Mbacke ñu waxtaan ci xasida yi ban mooy de mu ne ma midaad yi la Sëñ Tuubaa làkke arab yoo xam ne arab mosu koo làkk midaad yi wa aqlaami li man sax saxal yamma <laughs> eh, xasida googu dafa neex léegi nag mu mu jël nag moom moom Sëñ Tuubaa mu yem nag ci liñ tuddee mixwar bi mu bi mu maanaam maslak li li li li li li lil xitaaba aw li bas lil al al al al aw li iqtida xaalihi aw li muqtada xaalihi mu jóg xam nga xasida bu ñu la ko bindalee benn xasida xasida bi dafa war a am histoire danaa leen ci misaal benn xasida lu mel ne asiru maal abrari xiina asiru wa sanal ida ani honaka asiru xasida gi dafa am histoire ndax lu tax dafa am munasaba mooy dañuy wax ne booy woy war a nekk woykat dëgg da ngay def thème day am loola tax a jóg ci misaal nga ne woon tey bés bi xew na naa taalif ci bés bi loolu lañ ci dee muqtadal xaal léegi boo xoolee asiru maal abraar da ngay yëg ne kii dafa am lu mu def te ci biir xasida gi def na ci xeetu loo xam ne soo ko jàngee bu buñ la ko waxee te nga xam faaw nga jooy ndax liñ tuddee istiataaf ak istirham mooy yërëmtalu ak rafetlu ak taxasur da ko ci ràbb ba nga xam ne kenn mësu ko gis te daa bokk ci li gën a neex ci liñ tuddee ak al jumal al insaiya fi ne xasida yi gën a daaneel yi gën a mën a daaneel nit mooy xasida yi may wax mais am na xasida yoo xam ne doon jàng fii tey mën naa neex mais du gaaw a daaneel nit mais dafa am xasida boo xam ne dafay yëjji nit ki dafay def attaquer euh, nit ki directement dafay neex léegi nag soo demee ci biir mu ne xusuur yi xalat wal ahlu an far tafarraxat bi madaxi alladi anhu l madixu xasiiru samay njeen di wéet na samay kër tas na sax dàggoo ak samay njaboot xam nga loolu dafa dafa daw yaram waaw ah, dafa am façon waxin boo xam ne Moussa bi ko suñu borom génnee Moussa sidna Moussa yónent la xam ngeen daa nekkoon nag ci pale Moussa firaw na nekk fa ci firaw na yaru fa yaru fa ba ndekete moom la yàlla bëgg def yónent bi benn bés mu xëy ne ko kaay nag nga mos yàlla xam nga yàlla neexut nekk ci biir palais bi ndox mu sedd ak lépp rek yàlla nag bëgg ko doon ab yónent léegi nag tërbiya boo gisee mënta ñàkk foofu la ko génnee foofu ba mu koy génnee histoire dafa am musa doon atte ñaar ñu doon xeex far biti loxo ko ci mu dee ñu daal di daje ne dañ koy rey benn góor daal di ñëw ne ko dawal génn dëkk bi gaaw suñ lay jàpp dañ lay rey man ko dama lay digal dawal Moussa daal di génn xamul fu mu jëm gis nga la yàlla ni muy walloo nit ku mas a dara ci àdduna ku moo tax yonent la wala ko yàlla liggéeyloo ci àdduna rek teg na la natt fi ngay xamee ne sëñ Tuubaa amul morom mboolem kum jamonoon teet nattu yi ko yàlla nattu nattu la xorom wala genn wàll bi kum jamonoon teet nattu yi ko defal boo doon yër alxuraan baa nga yër feneen ku ko yàlla def nattu yi mel noonu doo ko gis doo ko gis de dëgg la natt nañ ko ko mel ni Seydina Yaxya ak ñeneen ak ñeneen waaye ñu ci bëri yàlla dafa seetaan ñu des ca ndax waxat lu mul anbiya dégg ngeen alxuraan di ko wax juif yi li tax mu mere leen mooy rey gi giñ daan rey lanbiyaaw yi te yàlla day seetaan kon yàlla yàgg naa seetaan de xam nga lu tax mu bàyyi fi su mbër mii mooy dafa fas yéene wut sëñ tubaa keneen yilif ko ci àdduna mbirum sëñ tubaa rek moo fi nekk mooy lumière bi leeral ba jamono ba illaa yomi jurante di jurante ba nga xam ne bu yomal bu ne bërit jóg bu taxawee ci kanam nit ñi rek tabaar ka bàlla ma ca ngay loolu la suñu borom nam moo tax looloo tax doxinam ak meloom ak léppam la yàlla bëgg léppam la jël léppam la jël mu daal di jóg nag innahu waadihul kalaam suñ tubaay ku leeri wax la ku leeri wax la wa bayinul maani ay maanaa yi mu lay wax maanaa yi dafa am solo ta neex loo loo loo lu sam xel rëy rëy rëy bu ñu la firilee xas rek sëñ Tuubaa rek dana yéegalaat sam xel faw mu yéegalaat sam xel kon loolu da koy def faxtasara kon gis nga loolu la ñuy wax al balaaxa wal bayaan wal badia mu ñetti ñetti xeet eh, eh, xam-xam yooyu moom nag li tax mu mën ko mooy daa wax ne an naxwu wal arudu wal bayaanu lii sulibat wali biha iyaanu nee jumtukaay yi taxoon arab yi mën a wax liñ daan wax ba tax ñu ne seen woyee rafet jël ko ak ko ca kaaba ga bi ma jógee bay liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama borom daf ne ma maa ko moom ndax mbootum làmmiñ wuy wax mën a maa ko jëloon jox leen ko ngir bëggoon a wàcce alxuraan léegi nag kee mooy muhammad la moom laa joxoon alxuraan yaay xaadimu rasul kon liggéeyal mu jox ko jumtukaay yi mu di ko liggéey moo tax mu ne an nahwu wal arudu xam-xamu nahwu arul arul mooy li ñuy wayee peese ak war way du soo woyee way da ko war a yóbbul ci ku xam arab mu xoolal la ko lu ko mooy boo ko bëggee way du neex loolu nag mu am ijaaz boo xam ne kiim tànnul liñ di ixtiyaarul kalimaat kon mu wuute ci ak sonraw ya raw ya dañ daan wax baat yoo xam ne day déranger nit dañ daan dem fekk jigéen way ko way woo xam ne woy wi tey bu ñu toogaatan ba jamono bu ñu la ko jàngalee doo bëgg doo ko bëgg a dégg wala ñu fekk ak garab wala nangam kon ñoom seen doole lañ ko doon jeexal amul njariñ Sëñ Tuubaa nag moom jël léppam digg yàlla yonent bi alxuraanul karim amul keneen kom ci boole kon loolu rek daf ci am jagleeg boppam goo xam ne ñeneen yi bokkuñ ci beneen bi ci des mooy soxaraa yi bu ñuy way yataassaruuna bi biatihim alladi alladina yaisuuna bi aw allati yaisuuna biha ñoom bu ñuy way dañuy jeexital ci environnement bi nga xam ne moo leen wër moo tax ñuy tudd yi nga xam ne mooy garab yeeg àll yeeg yu mel noonu Sëñ nag moom danañ dikk ci yi jeexital ci moom ba nga xam ne nuróowu nuróowut ak ñoom dara moom buy way benn nga yëg fitna mbaa nga yëg ab nattu mbaa nga yëg ak leneen waaye soo xoolee ci biir xasida ga la mu koy tàmbulee ci kaw mooy sant sant boromam ak di ñaax boromam wala muy wax loo xam ne yàlla defal na ko lu néew laay gis muy ubbi ko génn xasida rek di ci ñaan musiba suñ tubaa du ko def benn xasida man gisaguma ko xasida ko xam ne ko ubbi rek ñaan ci musiba dana def adresse bi nii comme lu mel ni mumitu mel ni mumitu xam nga mumitu xasida gi turu yàlla la jël mais soo ko xoolee yàlla moom mi nga xam ne mooy raye fi ni xasida gi boo meree sam noonu boo ko ko dee jàngal musiba mën na ko dal waaye jublu ca loolu mooy tur wiñ rey tur wiñ isolé ba nga xam ne ñu bari dañ ko ragal duñ ko jëf ne moom la jël dugalaat ko pour bëgg mu dundaat xam nga li ma wax bu baax tur wi la bëgg mu dundaat bu baax a baax a baax beneen bi ci tamit mooy tartar yi daan tartar yi tartar yi da yëg ne métti na ci moom waaye métti lu muy metti métti métti rek euh, da koy muñ rek maha bala yow maha amradi yow birri daa tanqaadu li axraadi yàlla far na sama lépp lépp loo xam ne coono la woon lépp loo xam ne balaa la woon lépp loo xam ne musiba la woon wa birri daa tanqaadu li axraadi ngërëm rek la may defal ci sama way yi moom itam nag mu jël way yi rek def koy magasin di ci denc rek lu ñëw mu dugal rek te du doyal mukk nag ndax xam na ni ëllëg fañ jëma lu jër lu ñëw rek mu dugal noonu la Sëñ Tuubaa def kon daal buñ xoolee mën nañ ne Cheikh Ahmad Bamba huwa haamilu liwaau shaar Sëñ Tuubaa moo yor nii drapeau way moom buñ ko doon joxe ci àdduna Sëñ Tuubaa lañ koy jox ñépp mën nañ ko wax li koy firndeel dañ ko wax xoolal wa muqalatan wa haajiban muzajjaja wa faaximan wa mirsanan muzarraja baat muzarraja boobu ibnu Duray ji wax na ci ibnu sayd wax na ci ngir xamuñ baat bi lan la ci firi ñee naan bakkan bu rafet bu ne copp bi nangam ak nangam xeet yooyu lañu nekkoon mooy roman yi ñu bind xam kon fi ne waaye lum lu mu bari bari na ko amee njariñ na ko amee njariñ beneen bi ci des mooy falasina amanu bii wa asaruhu wa nasaruhu wa asaruhu boobu fi ne mën naa am ñaari maanaa waaye bi ci gën a baax boo xoolee siyaaxul kalima siyaax mooy soo demee ba ci biir li muy wax ci biir baat yi dana ci am lu nuróog ne jubluwuñ cee wax lu tar jubloo wax ndimbal ak dëgëral yonent bi ngir ndimbal lañ jubloo wax ndax xam ngeen li wax bu baax day am baat boo xam ne su dikkee mën nga ko firé ne mën nga ko firé ne am na noo xam ne soo ko ni firé day yàq la ngay bëgg a wax ndax baat ba fa muy tàbbi la ak na muy tàbbee danañ ko indi sax ci ci ci ci ni ko sëriñ bi defal doxalee su ko defee kon moom nag mu mu muy buy tabaxu xasida ci anam googu la koy tabaxee gis nañ it liñ tuddee maqamatul maanaam day way waaye day wax tolluwaayam ak tolluwaayu nit ki fu mu war a toll loolu la ñu dee boo xam ne waxin woo xam ne waxi maqaal elmi yi lu mel ni bokkut ak xitaab loo xam ne comme ça kuy politique su taxawoon tey kooku day xitaab ajjuma ki wax day day xitaab kii waaraate moo isa lay def lépp sëñ Tuubaa def na ko bind na leetar na tontu na def na lépp way na def na lépp daal lu ñuy jëfandikoo ci mbind rek def na ko kon nag suñ gisee moom ay bindam jeexital bi muy jeexital ñu ne lan la Sëñ doon dund mooy da ngay gis ci biir baat yi muy wax naan as sufun wal jaar wal munsaat wal nasaara wa ahlul kitaab yooyu nga ëpp lu muy gis bu dee xasiday xeex yi da ngay dégg mu naan ahlul kitaab nasaraan yi gaal yi ak ndox mi ak géej gi yooyu nga gis muy wax ba ci quartier gi foofu da fi déggee ne moom ci fii la newoon buñ la ko waxul sax histoire danga da nga yëg ne fii la newoon lan lay jeexital tamit mooy mbakki bawal daaru salaam tuubaa mbakki kajoor mbakki baari jeewal ndar dakaar konakiri libreville galwaa dawme garambasa kable bi sa njole bamba ma ca ngay gis nga mbër balaa mën a daan dëgg day bëri ay ay ay jaloore waaye suñ tubaab bëri jaloore barke sëñ Tuubaa wayam sax laa wax soo dee ayasa mi ni laa en jeewali rek mu tàmbul di la wax nga xam ni kii jaar na fii sëñ bi nit fu mu jaar ba dem yow mi fa jaar jaaragut ku fa jaar taq bande ku fa jaar taq bande te yàqalu ko dara nag su ko defee bu demaatee ci munaasabaat diini yi mooy xew-xewu diine yi da ngay dégg mawlid mooy way rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahru ramadan chaban rajab sul qeeda sawaal nga dégg yooyu nga xam ne da ngay yëg ni am na lu xew mu ne la wax ci xew-xew yooyu xoolal ramadaan way yim ci way nga xam ne téere la ci def boo xam ne boo ko doon firi ci koor gi mën ngay firi ba koor gi jeex te du jeex li mu wax ci koor rek léegi nag su nit ñi déggee ñu ne sëñ Tuubaa nee na ci koor wala nee na ci rajo wala nee nangam dañuy defe ne day soog a xew léegi fekk dafa def lu bari te kenn mësu ko wax waaye daa xamoon ne danañ ko mas a waxi léegi nag wax jot na fi nii nag mi ngi nii télévision bi rek ma fàttewul Bichri lañ ko tuddee fa ngi ni ma leer na ne lépp dina dikk am na yeneen ci li ñu tuddee ay taalif yoo xam ne xam la li ñu tuddee al muallafat al ilmiya lu mel ni tey tawxid mawahibul quddus tasawuf masalikul jinaan islam tasawudu sixaar tasawudu subaan ak yu mel noonu madaxa muy way mën nga cee jël limaahin mën nga cee jël alaaman bi ñu doon wax léegi way yoo xam ne yu yéeme yéeme yéeme la ah. kon noonu la sëñ tubaa di loolu yëpp def na ko suñu xoolee day wax naan lettre def na ci lettre yu bari li ñu tuddee jëflante ci wàllu nite lettre nga bind ko lettre mu jëlaat tontu la li muy ñàkk ñàkk jot di sëriñ bi nga xam ne moo yilifoon ñëpp di ki tubaab bi yoroon jàpp ko xañ ko biti bi di ki nga xam ne moom la mbooloo mi daan wëkk guddeeg bëccëg muy faj ay aajo yor ak njaboot ak boppam yilif mboolem li yoon wi jamono booba it mboolem tubaab yi moom rek lañ daan déglu luñ mës a dugg te laajuñ seen tubaab duñ ci dem bokk na ci guerre mondiale bi ñu laata def dara dañ nañ dem ci Seex Ahmadu Bamba su nangoo ñëpp danañ nangu bañ demee sëñ tubaa nangu wëlbatiku weesu na loolu waaye njaboot gi ñu bind ci ñoom ñëpp xam ngeen ne bindoon nañ sëñ Modou Moustapha demut Seex Yaaba Jóob ko demal mooy bàyyi Sàmba Yàlla Jóob xam ngeen ne bind na see maam Seex Faal bind na ci ay doomam sëñ Fallu Faal demoon na ci fala des kon ñoom dañoo bokk ci réew mi xeex réew mi loolu mooy xeex réew parce que ba ba yëf yi méttee nag dañoo jaay seen deret kon ñoom def nañ lépp wàcc nañ kon kenn du leen wax ne ay sëriñ rek lañ def dañoo participer ci lépp réew mi ci li taxaw réew mi loolu loolu moo tax dangay gis ci biir xasidaa bu euh, lettre yi buy bind day jëfandikoo baatu bi yàqil la mooy yow sama xarit Sëñ Tuubaa ci boppam la wax ak ni mu toll waaye day bind léeg-léeg di jëfandikoo baatub yow sama xarit day jëfandikoo baatub yaa muriidu day jëfandikoo baatab yaa aqi day jëfandikoo baatab tamit jigéen ju jébbulu muy almurida dana jëfandikoo ibnu xaali comme ni mu ko waxee sëñ Mbàkke Buso mooy sama doom nijaay ji dana jëfandikoo yeneen yu bari yu mel noonu kon suñ demee ci ni muy tuxoo buy wax dara ba mu yàgg mu tuxu liñ tuddee liñ tuddee suraatul intixaal maanaam ngay wax dara ba mu yàgg nga jóge ci lii rek bëgg a demaat ci beneen te du yàq nag li nga doon wax fi ni xasida yi am na xasida boo ko tegoon tey jii li muy tàmbulee day dem ba ci biir mu sensé waat way bi def na ko ci limaahin basirin ñetti xeeti kii la ci def dem na ci ba ci biir sax ci xasida euh, jaalibatul maraaxib def na dem na ba ca biir ba ca cat la ca mujjantal ga mu soppi sax far daaj ba sans indi beneen daaj def ko daal di daal di war daaj ba daaj basit waa ndax ba muy ñaan yàlla la jël daaj basit xam nga basit soo doon wax tey basata lii nangam nangam da nga naan waa ji yullil na ma nangam wala tabet na ma nangam léegi nag ba demee bay ñaan mu war basit nag tax sëñ Tuubaa dégg daaj barke sëñ Tuubaa ako dégg daaj kon noonu nga gis loolu la yëpp mel bu ko defee nag euh, yooyu ñu doon wax léegi nga xam ne teggin yaag ya ca aju ak rafetaay ba danañ gis laylatul mawlid bi ma leen doon wax léegi xam nga dafa ñibbisi gànnaar bi mu ñibbisee euh, géej gi laa bëgg a wax toog di nappalu juróom benn weer yi matagul tubaab tubaab bi di ko fexeel ku ngeen déggoon ci réewum Sénégal waaj na ngir bëgg a siyaare ji sëñ Tuubaa Daaru Manaan ñu ne ah sëriñ ba tubaab bi yóbbuwoon ca géej ga dellu si waat na fo xibaar bi dem kenn ku ne ñii ngi war ay mbaam jógee Saalum ñiy jógee Waalo ñii jógee fu ne ci àdduna bi rekk jëm Tuubaa ñëw Mbàkke ndax Daaru Manaan googu la dëkkoon sëñ bi taxaw nag tàmbulee defar lu ay néeg ñu tàmbulee occupé néeg yi matériel bi ñu doon yónnee ngir def ay lala ki def yëf ñu jaar ci indilaat ko fitna tàmbaliwaat taxawalaat ay yëfam di gisaat ak njabootam coono bi dalagut juróom-ñaari at nga ñëw toogoo juróomi weer ñu bay ba bayalaat la ba génne la dëkk bi barke sëñ Tuubaa kuñ ko defoon ku sëñ Tuubaa da ngay faatu barke sëñ Tuubaa maanaam juróom-ñaari weer nga tukki ko xool ñu ñi di tukki Italie wala fenn rek dañu noosaka ndox mu sedd dugg ci wal ñu wàcc te boo ñëwee da ngay am ay fan doo génn ñu wax ne nga damaa sonn damaa sonn <laughs> ah yoonu màkk mu ko da dem dikk <laughs> yéeme na de bilaay suñ tubaab bokkut a kenn bokkut a kenn yooyu nag suñ xoolee san borom mi yëg ne moom sëñ tubaa sonn na daf bi jafe-jafe bi amee mbàkke bari dafay gàtt duñu ci duggee day xaw a lekk tem bi waaye bi mu demee def sëñ sunu borom daf ne ko bul waayati bul taalifati may na ko ko léegi mu fiixal boppam tuuti Sëñ Tuubaa it loolu ko suñu borom wax ne ko bul taggati bul waxati te xam nga def ne woon yamini alayha day nu xattin sama loxol ndeyjoor yi def naa ci borom tagg rasulullaay guddi gàmm gu jot danaa ko lëggeel xasida ko yees loolu la waxoon ca ba muy wax naan ahyaytu mawlidan nabi min asasin wan xaat li fa waxal mën a fital sasin nee nañ mbàkke bool ci këram gim njëkk sanc foofu ci armée li mbusoo bi nga xam ne kër ga sëñ mbusoo bi la ko jël rafaatale ko ko mooy kër sëñ Tuubaa gim njëkk sanc boobu taalibe yi bari nañ ñu defaral ko fa kër mu dëkk fa foofu la njëkk a gàmmoo mooy asas léegi nag bi mu demee dema dem a dem nag ba àgg ci nag dem géej ba dellu siwaat gis nga bi mu ñëwee Touba ci la def yeneen xasida yu siiw yu bari yi ngeen di gis diggante Daaru Salaam Touba la ko liggéeyee ñu di ko mawlutee di jàng comme nii ngeen di gis ni mu neex lool ñun nag dañuy defee ne ñun rek ñoo xewalam njàng waaye déedéet njàng mi fi nekk ki bind xasida yi moo wane nuñ koy jànge ndax moo ne leen nii la ko malaayika yi di jànge xëy na nag danañ dem ba mu yàgg yeneen daaj di xew léegi nag bi mu demee ba àgg ci guddi googu nag mu dem gànnaar ba toog fekk waxoon na ne sama boroom warlu naa guddi gu ne ma tagg ci te yàlla buggut sañ tubaab di wax mukk ci àdduna wax ba di nax saay ndekete sunu boroom moom bëggul loolu sëñ Tuubaa moom moom it xamu ci dara rek yëf yi daal naqare na na ko lool néexu ko waaye daal ginnaaw yàlla waxu ko ne ko liggéeyaatal moom mu bàyyi noonu rek wax bi nag jaxal ko ah man de fas naa yéene warlu naa ko bés bu sedd naa ko def say wax nar a bi ko nee na ma toog toog toog toog toog ba ci guddi gi ba jant bi di sox Sëñ Tuubaa ne bëri jëm si ci néeg bi Seydina Jibril ne pem ak moom ne ko sa borom jox na la ndigalal nga taggaat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu daal di àgg ci biir néeg bi rek jël xalim bëgg a jël daa ji daa teg yaqini ilal jannati ma laysa yuhmadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne cëpp ci kanamam mu daal ne rasulun karimun baytana saara ahmadu ak borom wàcc baal ca mate ngay kooku bokkut ak kenn tey leen ko tey leen ko day gaañ tey leen ko hmm. kon noonu la noonu la mel su ko defee nag liggéey na it liggéey boo xam ne dimbale na ñëpp mooy gis nga fi ne boo gisee li yem ci yem ci li sañ tubaab bind soo ko xasee xam man la man man laa defal lépp man laa defal lépp li tax mooy dangay gis liñ tuddee xisbu yi fi nekkoon ahsaab mooy li mag ñi daan def bu njëkk da ngay gis sidna Cheikh Abdul Xaadir Jilaan def ko Cheikh Abdul Cheikh Ahmad Tijaan def ko Cheikh Abu Hasan def ko tuddee ko ay xisbu xisbu mooy li ngay jàng par bés di ci ñaan yàlla mu musal laak yu mel noonu yu bari moom sëñ Tuubaa nag bi mu dikkee fekk mag ñi ne ci mu indil leen mbind moo xam ne doy na sëkk muy xisnul abraar tuddee ko xisnul abraar defal leen mbindum Hizbul Abraar mu ñëw fekk maamam soxna Asawaalo di doon doon doon ku jàmbaare doon mu xaddam ci tarixa Cheikh Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani di wird lu bari di jàng lu bari mu gis ko daal di koy defal taali taalifal ko xasida gu gàtt goo xam ne daf ne ko loo bëgg da ko ci am mboolem li nga doon jàng ci ay dog def naa ko ci biir xasida gi muy yàllaahu bil Mustafa sindidi yàllaahu bi xalilika Ibrahima yàllaahu boobu xasida xasida gu yéeme la ndax dafa def tawasul ci mboolem yonent yi walbati ko ci ñoom dem ci malaayka yi wa bil malaayikati turan summa safwatihim jibrila summa bi mikaila yallaahu jóge waat ca dem ci mag ñi daan ne wa bi sahabati summa al awliyaa ma an wala alamina min al ahbaar yallaahu maa ngi dem ci sahaaba yi jaar ci ñoom jóge waat fa dem ci asaabul masaayiqi daan ne bi malikin silma saya saafi ya bi hanifatin ahmad al mahmuda yallaahu dem ba àgg mu ne balix salaati yi wa taslimi alayhi la wal ali wa sahbi wal ashabi yàlla daan ne nag ba mu agsee nag daan ne ko nag yow sama borom waxante naa yow ba noppi sama borom ne ko ubbil naa la bunti mu ne ko waftax la naa kulla baabin kunta faatihahu li saalihina min al xayraati yàlla <laughs> yéeme na de ak ko ñëmee responsabilité waftax la yow yàlla bul ma desal dara ubbi na bunt boo mësa ubbil ab yonent wala ab wàllu yu danaa ca jaata danaa génn sama borom ne ko jàmbaar nga mu ne ko ubbil ma rek mu ubbil ko bunt yëpp loolu tax sëñ Tuubaa rek mën a moo mat a bëre moo war a bëre moom rek moo tax am na lu mu wax de nee na fa ma fa man saa fal yu jarri bi nee na nee comme soob rek di yëf yaa ngi noonu comme soob rek yëf yaa ngi nii defal comme man rek defal ah man yu sa yow man yu jarri baa bi taxaru bi de <laughs> ku ko def nee na nee na nee na da tumuranke lool te kenn du la fa fekk sëñ Tuubaa nee na fi ma jaar ku fa jaar danga nga tumuranke lool te kenn du la fa fekk munasabaat sukri yooyu mu mu mu woy nag kon kon wax nañ si di wax nañ loolu duwaawul kabir duwaawul kabir bari na taalib yi ko du jàng waaye xasida la koo xam ne da ko da ko da ko da ko wesar mbooleem lu ngeen gis naar bi di ko wax bu taxawee buñ naafila naafila kaamil bi ca kaabatul musarrafa ba imam bi taxaw di wax la muy wax bu jàkkaarloog sunu borom lépp ñëw na ci duwaawul kabir boobu ak leneen lu dul loolu ñëw na ci duwaawul kabir kon ñu gis ne sëñ tubaa ci mbindamit fi ne mën naa bañ a jaawaloog mbindam keneen xasida sëñ tubaa mën naa bañ a jaawaloog geneen xasida lu tax fi ne buñ ne tey jawartu Sénégal gépp danañ xam ne jawartu moom tubaa la dëkk fi ne lu néew la ngay gis xasida guñ mën a wax nga ne xasida gii day diwa ko way barab sàngam la dëkk wallahi waaye foo déggee it kenn ko wax ne làkk sukóor yi ñu ne kii daa murit la kooku dégg ndax lu tax mooy xasida yi seen jëm bopp dañoo doon ay jëm yi leer yoo xam ne saa buñ koy wax ñi ngi fees dell jaww yi di dem ko dikk loola nag moo tax fépp fu ñu nekk ndax xasida day am effet ndax soo demee ci eh, lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi da ko ci fekk xidmatuhu anil uyuba ashabat wa bistiqamatin wa safwan wahabat lii baana kaw nu Mustafa raisa li kulli man xat fuddi looru oosa kon loola foofa la ko suñu borom mayee léegi nag li tax ngay gis soo gisee mbindum sëñ Tuubaa doo ko jaawale da nga cay fekk loo xam ne moom képp ko ñemee wax benn muy may gu rëy ña ko fi jiitu woon xamuñ ko woon ndax ba mu toogee ba jàkkaarloog suñu borom ba mu ko waxee daf ne sunu borom dem na ba ubbil ma lu ñu tuddee jalaalullaahi wa jamaalullaahi sama borom daf ma ubbil ñaari leeram yi ne ma jalaala ngi ni jamaala ngi ni tànnal loola neex mu ne ko tànn naa jamaalullaahi waajahinil jamaalu wala inaaya mustaqnijan billaahi an shikaaya loolaa tax bi mu dikkee fi mu ne léppam day jaamu yàlla lépp sëñ tubaa day jaamu yàlla keroog ko suñu borom nangu ne ko sa lépp nangu naa ko te dootuma bañ la bañal sa dara sëñ tubaa booba nag su ko neexoon ne yàlla bu ëllëgatee na fay sawara ba kenn dugg sawara suñu borom dana ko nangul loolu lañ tuddee inaayatu jala jamaalullaahi fii maqaamil inaaya ku fi ma sa toll rek sunu borom fal na la nga jiite ci yoon sëñ tubaa bi mu dikkee ba foofu daf ne man damay soog a tàmbali moom daf ne damay soog a tàmbali kon da fekk ci mbindum sëñ tubaa liñ tuddee boo demee ci nooru daara yi da nga fekk siral masoon siral xot siral xadd ñetti xeeti secret yu mbóot yooyu ñi mi woo dem ci genn xasid ak nit kuy taalif laa la wax te du yónent mu di ko tudd ci làmmiñam te sëñ tubaa nee na liggéey naa ba sama boroom xëpp ma mbalaan yooyu te taxul mu yem ca de di dem rek da nga fekkaat muy wax baat yi ci mbindum sëñ tubaa lañ ko miin mooy akramani foo ko fekk mbindum sëñ tubaa ilay xaada foog fekk mbindam sëñ tubaa lam yan hu ni mbindam sëñ tubaa xos mbindam sëñ tubaa xott mbindam sëñ tubaa jaawas mbindam sëñ tubaa kaanali mbindam sëñ tubaa barakati mbindam sëñ tubaa waxabali mbindam sëñ tubaa lan lay firi ak rama ni yàlla teral na ma ilay xaada yàlla womatal na ma lam yan hu ni du ma jublu mukk xos làq naa xott yàlla womatal na ma jaawas weesu naa kaanali sama borom nekkal na ma barakati sama barke waxabali yàlla may na ma foo ubbi xasida rek danga ko ci fekk kon nag walla walaw fi tilkal makatib xasaais la yusuf te gis nga yii yàlla may na ko ci jagle goo xam ne mënee su taxaw di la ko misaal loolu it léeg-léeg mu am xaal boo xam ne su woyee na mu bëgg a woyee dëgg dëgg dëgg nit ñi sax duñ ko mën a jariñoo looloo ko daloon ci bax baxaa bax baxaa boo ko gisee day mel ni ay cax bax baxaa waaye booba xaal baa tax fa mu toll la woon boobu nun rek la mën a def fi ne su fa wees woon rek ci ni mu ko tëggee noonu dangay ngay yëg ne kii kat ñi ngi koy sonal te fi ñu koy sonal jege na ndox waaye waxut ndox mi dëgg-dëgg mais baat yi muy jëfandikoo ay bijaxaa jax-jaxaak dex-daxaa yëpp da ngay yëg ne ni géej gi di yëngoo noonu lay yëngoo ci kanam sunu borom nga xam ne bu fa jàlloon rek lépp mën naa jaxasoo foofu ngay xam ne kenn xamut lu mu doon baat yi da koy firi dafay sonle lool dégg naa sëñ Abdu Laat sëñ Laat Saane am na fu mu ko jëlee ci téere yu jafe la ko génne génne génne di di ko firi baat yi fanweeri téere dem na ci am na baat yoo xam ne ca lañ ko soog gis xam ngeen ne kooka du koo xam ne xam-xam dañ ko koy jàngal de allamanillaahu mimmaa yashaa'u la wax fa farra iblis wa maa wallahu sama borom bi ma wooy ba ma dikk mu dëj ma jàngal ma ba ma fees jàll bi ma ne wëriñ seytaan daf ne wëqet daw keroog la ko seytaan ragal allamanillaahu al alim yàlla mi nga xam ne moo xam lépp xamal na ma ku yàlla xamal nag yow rek yaa mën a wax ne karaamati xattu yaddi fii xidmatil moo ay yaddi sama mbindum loxo mooy kiimtaanul jamono ci bi may liggéey rasulullah sallallahu alayhi moom rek moo ko mën a wax kon loolu du mbindum loxo rek moo taxoon ci njëlbéen ga ma ne la woon way la soo ko dee xool waaye ab liggéey la nag su ngeen gisee ci biir tamit muy tudd ay may yi ko sunu borom defal waaye di laabiri nit ñi ko ñi ngi àndat adduna bépp buñ xamoon sëñ tubaa lu rafet li mu wax ak li mu way wallahi al azim crise de valeur yi am ci àdduna duñ du leen dal mukk ci àdduna crise de valeur li tee Sénégal gi temps yi xale ba réer na sàcc nañ xale ba dagg nañ loo xam ne dem nañ ca armeel ba su likkee su fekkoon taalibe yi sëñ tubaa yépp ñi ngi jëfandikoo ni murit saarix yi di def dëggantaan doo dégg tooñ ku tooñ mukk doo ko dégg ndax booy jébbul da nga naan dañ bul tooñ te ku la na nga ko jéggal te na nga nangoo jàmm yàlla ñun loolu muy suñu contrat yaakaar naa ne kon jàmm rek kay am te suñ ne newoon na tur si anil akdar wal mafasid salaamati min bi li fasid nee na li dox sama digganteeg nëx-nëx wala lu bon mooy lépp luy bëgg a xew rek sama borom moom defal na ma ca jàmm ba noppi balaa loola am kon su nekk jàmm jàmm suñ tubaa tax jàmm di fi am dëgg la buñ xëyoon tey di ne bëri indi fitna rek jafe-jafe daal di am ci réew mi xoolal wa kullu ojalati min alcheytaani lakinnama xamsun min arrahmani mu ne yàkkamti bu leen di yàkkamti ndax yàkkamti ci seytaane la bokk xoolal laa biré googu gépp yàkkamti ci seytaane la bokk lu juróom yii nga ne ko yan mooy juróom yooyu mu ne la taswiiju bikrin soo amee sa doom bu jigéen soo gisee ku ko bëgg gaawal jox ko ko ne na loolu mëtt a mëtt a benn bi si nga ne ko ñaar bi mu ne in adrakat ku fu an ruxibaa mu ne la wa misluha xadaa u daynin soo amee bor bu ko yeexee nañ ko gaaw fay bor nangut yeex a fay nga ne ko waaw mun la tajhiisu maytin néew bu faatoo mëtt a yeexe nañ ko gaaw denc nga ne waaw kon ñett nga noonu waxar nu day si waxar nu euh, fin fekk gan gu wàcc sa kër dalal di jox ndox jox lekk ndax xamuloo fu mu toll nee nag gan bu wàccee teraanga jang koy teral mëtt a yeexe wa nee na nit ku def bàkkaar ba saa bu demee ba xelam xam ne moom mi yàgg naa def bàkkaar na gaaw tuubi Sëñ Tuubaa nee na juróom yi kenn du ko yexe xol yi te da ko way fi ne mën nga ko jàng ni nga jàng xës day te doo xam ne yow lii la la ci wax mu naan taswiju bikrin in atrakta kufan ruqiba wa misluha wa misluha xadaa udaynin xad wajab tajhiisu maytin wa xiraa dayfin nasal wa tawbatun min kulli da ko way fi ne te lii la ci wax kon nag da caa wax daane nuqila si anin nabil mu'tama salla alayhi llahu suma salima daane yii ma wax nag bu kenn jàpp ne sama xalima neex sama reer neex rek may wax daane déedéet yonent yàlla moom sal sal moo ko wax gis nga am na fi mu waxee li ma la wax ne la day tudd baatu murid dañu doonaka min nii ayyuhal muridu yow murid bi maa ngi lay wax maa ngi lay wax nasihatan li saa li saalikin tufidu képp ko xam ne da bëgg sóobu ngirum àgg ci suñu borom alayka bis wa bil aadaabi in taqsudi ridwaan yaa xalili na nga yor ay teggin gis nga yoon murid bi ku la ci gën a mën a jariñu daf laa ëpp teggin ak war ma wa xalilil kalaama fil fuduli bul bëri wax in taqsudi ridwaan yaa xalili wa dum ala dulli wal iftixaar bul rëy rëylu koo gis wane ne yaa ko gën kon Sëriñ Tuubaa tere na ko wa bi tawaado wala inkisaari na ngay toroxlu wa jaahidi nafsa na ngay mënanteeg sa bakkan dafa bëgg mooy loo yàlla lànkal dalaa bëgg sàcc loo lànkal dalaa bëgg wax loo lu neen lànkal dalaa bëgg a tàggaleeg sa mag lankal sa nijaay lankal sa baay lankal sëñ tubaa dafa bëgg ñu boole ñëpp baax ci ñëpp sëñ tubaa moom soxna si sëriñ bi maa ngi jébbulu maa ngi jéggulu sant yàlla alhamdulilah loolu la bëgg ñu di ko def suñ ko xasee di def baa yooyu moo yooyu bu ñu ko dee jëfandikoo jàmm rek kay am nee na na nga góorgóorlu say lor maanaam problème yi nga am na koy nëbbu beneen bi ci des mooy bul di bul di doxee njort bul di doxee njort bul ko def kon ñu bi ci su mu wax ne fa kullu man jaalasa sa sa isyaani la budda an yamina lil isyaani xoolal loolu way la daan ne wa man yusaahib aaliman qad amila bi ilmihi la budda an eh, yaxdanima xam nga lan la la wax foofu daf ne la képp koo xam ne yaa ngi toogaale ak kuy mooy yàlla mooy yàlla rek ngay def kuy toogaale ak boroom xam-xam xam rek ngay am dangay ngay jub rek daal di ci àgg yeneen yi kon yooyu mari ne ne mbindum Sëñ Tuubaa lépp tabarkalla li naan Sëñ Tuubaa buy wax xasida yi wala muy bind dara baat yi muy tànn ni muy neexee ak ni muy ni muy waxee da ngay xool li urdil ilaha wa urdil Moustapha bitila watil kitab alladi qad jàll maanaahu fas naa laa yéenee gërëm loo yow sama borom mu ne waaw mu ne ko fas naa yéenee gërëm loo Muhammadul mustafa mu ne waaw mu ne waaye lépp nag maa ngi koy def ci alxuraanu karim mi nga xam ne maanaam alxuraan kenn mënu ko génn maanaam màgg la xoolal lii yëpp ko ci benn way wax ci katabtu li sukri anni la amuddu yaddi illa liman lam yakun lahu kufan ahadun soo déggee way bi da ngay jàpp ne xulallaahu ahad lay wax dañoo nuroo waaye fekk dafa contraire bu ñu waxee suñu borom ba noppi nag jaaree ko ci baatub sant loolu lañ wax ne waaye bi gën a neex bokk na ci addi yi moom ti naaxan li baxri nada jasilul huda fatanaalu ruboox addi moo sana an li la si xat xawaa sajaayal kiraami bi fadlin manoo xoolal maa ni muy baajee buy wax wax bi ni muy baajee ni muy demee ko dikk sax yow boo ko déggee da nga xam ne kii kii mën na xalimba ku mën xalimba ngi nii xam nga ñaari baati at yi mooy fi ni li ñuy sosee dafa xam ne bu waxaatoon ani eh, imtidaan bi jël bee imtidaan bii mu bii mu dugal sanaan kon di wax ne ba pare bi mu ne li baax na daa géej gu géeju tab ga fi ne jëfandikoo baat boobu lu ñu tuddee istiaara maanaam su ma ne woon cerno gaynde la loolu lañ tuddee istiaara mooy loo xam ne da nga waaye su ma ne cerno comme gaynde loolu lañ tuddee tasbih loolu dañ leen ko leeralal ci xam naa ne damaa xamul sax waxtu yi xam naa ne jeex na waaye dafa mel ni rek suñ fa ne bu beneen rek ñu ñu ñu kii am na fu ma ko tënkoon foo xam ne ah alhamdulilah <laughs> waaw waa kay su dee tagg gis nga xam nga dañuy wax ni'ma ak beex sa xoolal ni'ma nabiyu wa rasul ni'ma si jaada bi suul lanaa bi rabbihi l jamil min sikrihi wala xam bu dee way nga xam ne bu dee taajub taajub mooy li nga yéeme mu yéem la xam nga dañ la cee may nga wax diw maa ajasa maa afdala maa nangam moom mu jël baatab akrim bi zalikal kitaab fii huda wa sawaab fii lkitaab wal jawaab min rabbina til qidami kawtiful téere boobale moo tax doo ko doo ko waxi ndax eh, mu ko noonu taajub beneen bi ci boo ñëwee tas bi muy nuróole dara ni ko ulamaa yi di defee mu ne xat xaama xëyrul basari wasaxyaara sumari illaa sawi takaburi kal badri wasta anjumi mu ne rasulullah sallam nee na ñokket ki nga xam ne muy ngën ji mbindeef dem ci biir mbooloo mu bari ñuy way tànn ci ñan la jëm waaye jëm ci way rëylu ña waaye boo ko séenee muy dem nga dafa mel ni weer ci biir bidiw xisiñ xool xool waxin wi ni mu rafete nga xam ne li bëgg a wax lépp ak jum baat bi yi mu jëfandikoo kon euh, ñu daaneelee ko ñu daaneelee ko rek euh, euh, xam na bëggoon nañoo indi lu jëm ci wàllu euh, darja yeeg yi mu wax noonu ci biir xasida yi waaye xam naa du fi xaj waaye ñu barkeelu ci tuuti rek ci maanaam sëñ tubaa li ñuy xamee ne ñun liñ ne ak liñ yor luñ ci jéem mën koo taxal ba ci bés bii mooy barke bi li mu tudde baarakta li fii man jalaaw ma sakkan wa zaahir yu baat ni fii ka sakkan saytali bi maa kafaaniyal mihan yaa man li fulkiya bi fay di ko saxan xam naa ne dootu kii ndax waxtu wi jeex na waaye rek bu yoon jeexul wax si lu jeex looloo ci xaj ci waxtu wi waaye tabarkalla ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yal yàlla defal jàmm te defal na ko te nangul nu ñi ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñoo ko def bés bii daal luñ ci jublu yàlla nañ ko ci yàlla nañ ci fekk lu gën a kawe loolu waaye bokkoon na ci yu bari ñu waajaloon ci yenn xasida yi ak xasiday xare yi ak yu bari indi woon nañ ci yenn waaye rek ñu bàyyi ko fi rek ndax lépp xajut ci sëñ Tuubaa waxtaane ko njàbbum gileem la xajut ci kuroon lal du jeex mukk jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu